booy Café Touba gis nga man damaa commencé sonn si Macky Sall ak Sonko fii jaar na fii jël na Macky fii président fii Sonko fii. chaque jour ñu convoqué Ousmane Sonko kenn mënu liggéey banque yi tëj dem dikk tëj moto yi ñu taxawal leen sareet yi daw welo yi di jaar fële jëkk bi jaxasoo man damaa sonn. ah Pulo loolu koy Sénégal yépp ci sonn ñoom xalaatu ñu yor liggéey jàmbur yi ak ñi nga xam ne dañuy xëy di taaba taaba uti dépense maa ngi nii café bi may si laa yaakaar pour faj sama soxla. bari nga si bari nga ñoo xam ne su manifestation amee duñ këy duñ joxe dépense seen njaboot du lekk mairie yi duñ jaay kenn du lekk dañuy tëj seen doom yi yëpp tëj seen jànka yi tëj seen doom yi jigéen yi naan wóorul kenn du génn kenn du nekk si jàmm. waa gis nga mais ñun suñu dirigeant yi ñu yëpp respecté wu ñu ko waaw booy yow bul jaaxle su mu booy nga bu manifestation amati nga ñëw ma jox la njëkk jox la añ après mu lebal la reer bi. kan yow mii. waaw waaw maa lay jox nga ndékki jox nga añ ab mu jox la la reer ak njoganal fanaa yëpp. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulau Jama Excellence. Wah, ya nyari yoon laa la wax ni man du jaay cigarette du jaay ris laa du jaay pon. Da nga war a jaay Eh. Hey, man du ma sa morom jaay ma laa wax tàmm nga saayoo man de nga lakal nga direeku nga ñëw dim sonal. Aja umaro ya bolal ma jugal fii balaa ma laa noq Kan Kon jaay ma jaay ma jaama jaama jaama. kaw loo jënd yaa ngi nii am problème wax loo jënd jël fi mi yaa ni ma yaa bolol ma. xaaral jënduma cigarette. waaw waxal gaaw léegi waxal léegi loo jënd léegi yëngalal ci kal bi nga wax loo jënd bu mu nee am ma jaay la. jaama jaama jaama mbaxal. eh kii damay waay waay. mbaxal doo dem restaurant bi eh xam tan mi xela cak xam tan mi wara cak booy café Touba barki yàlla yow seytaane nit ku baax dangay maanu maanul. Poulo attends pour pourquoi ku la wax dëgg rek nga mer nekk fii di xulo kuloowu mu de déedéet kuloowu mu te man baxu bañu mu ku mu wax dëgg. yow si boppam yaa seytaane an kaa xaasida. mais seytaane wu ma dëgg laa la wax. sa marchandise bi balaa moo périmé doo ko génnee nga maye ko fi nga koy teg ba date bi après nga sànni ko loolu pertement la. waa baax na ma sànni ko ma yàqule moom gënal moo tax ma koy jox booy seytaane yi yi si wet bi waa gos ni seen kaw yi tilim yi seen ñaari kaw yëpp tilim suy bale suy bale fer mate mboor day rey jinax day rey raam day rey mboor kaa suy bale he he jaagal poson ke kaa jaamu poson fer mate mboor mboor mboor mboor he he waxal ndànk noppi bul bënn sama noppi dégg naa yaa jaagal poson fer mate mboor mboor Ma, ma. arrêtez sa yuuxu yi ana la wul la tam noppi. naaj bi tàng dama yaakaar ne waxal waxal waxal waxal loo bëgg ma jox laa soxla waaye soxla bu jinax wala bu mbóot de. bu mbóot bi wala bu jinax wala bu fel bi waxal gaaw. posan seytaane laa soxla bi koy jox mu dee léegi. ah ah ah posan seytaane mooy loolu mooy la ah poison pour nit bu seytaane laa wax nit bu seytaan daa ko am dem ko bëgg jox boole kaat café wala meew wala mburu moo kam mu lekk ko mu dee <laughs> eh, eh eh eh déggal loolu ah, ah loolu duma ko déggaan ndax duma fekk yow reykatu nit nga asasa dem naa hey hey Ariem doomu jaay kaay bi ma ko musuma ko am ba ma dem aw ma ko gis nga yow pour la yow sama moytuwul naa la jam nga dee kon alhamdi ko am njiit mi pos nudi yow kam nga ne yow laa bëgg posé ne kam nga laajuma la ah soo ma waxitee laajum mi xenda xande mi xeccante mi xelañ waaw booy booy cag-cag yow barki dem ba leen ni bàyyi si marchandise bi ñëwal lan la lu xew mais poulo fu may jaar booy fu may jaar mooy la xam nga foo jaar waaye Pulo préfet une deux mu ne deux roues yi duñ nga dégg de préfet bi lu muy dem du dégg du yoon tegu ko fenn ñoom dañuy toog fi ñu toog di liggéey tere nit ñi di liggéey Sénégal dafa métti nit ñi dañu kay ba midi soo ko mën a am lu ñu joxe dépense ñoo dul leen sóor Pulo soo bëggee dégg dëgg om politique yi yàq nañ Sénégal ba pare yàq nañ dëkk bi te seen benn doom nekku fi ñun doomu baadoolo yi rek ñooy dee dañoo yaakaar ni seeni doom ñoo ñu gën nos vies ne valent rien à leurs yeux. nos vies valent rien mooy loolu lan mooy loolu. maanaam daal ñun doomu baadoolo yi bu ñuy dee ñoom lijjantiwuñu ko. lijjanti wuñ ko kay ñoom seen intérêt ak seen intérêt njaboot jii leen moo leen ñor ñu seen njaboot tekkee rek moo leen ñor su leen Sénégal ñoroon génn nañ wax ak nit ñi bu yàgg duñ seetaan doom jàmbur yi dee comme ay weñ comme ay canards bi. waaw léegi jox ma marchandise bi. ma gaaw dem balaa affaire di commencé waat gars yi dañuy baari tali bi de. ban marchandise. kon yow booy da nga bëgg mu ubbi ñu sàcc suñu marchandise yi gisoo bu ñu manifestation dañuy taal lii di yàq marchandise nga bëgg mu ubbi yow booy yéen waam jàmm de. mais léegi. pour le kon nu may def. nga dem ñibbi seen kër ba jàmm ñëwaat Sénégal man du fi ubbi agresseur yi ñëw di ma agressé booy yi di ma kokkantal di jël suñu saako yël suñu soos di ko mar di ko mayal du ma ko ma ñëw dem. waaw mën ngaa dem dégg mooy daje ak préfet de mooy tul daje ak préfet préfet damaa yaakaar dafa am problème ak uskuteur yi est-ce que uskuteur mosu ko mbëkk ba mu nelaw ñaari fan mu yeewu affaire traumatisation ko <laughs>